RTS 1 Dakar waxtu wi jot na bisimila ci xibaar ci wolof gën a fés ci xibaar yi président de la république ma nga woon ca république démocratique bu Congo ngir fekkee nag tegaat bi doon tegaat ci siis bi président bu RDC ginnaaw nag ñaareelu mandat bi muy euh, sumb. njiitu rew yu bare teewoon ci bokku na ci président bu Sénégal du président Macky Sall xibaar yi dina wax ci CAN 2023 xam ngeen démb gaynde Sénégal dañu daan euh, yu Cameroun 3 buts à 1 naka nak lañu ñu yeewoo ci suba ci Yamou Yamoussoukro daan ci joko ak suñuy ndaw ñu wax ñu naka lañu dundé match bobu waye it bi ñu xëyee ci suba naka la doomi Sénégal yi yeewoo foofu ca tanière ba

ñaar juróomi at nag après gis nañu nag ñi di waa hôtelier yi am ci kontante ak mbégte lool ci wàllug xeexum avancée de la merde mer boobule. ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte ànd ak yéen ci télévision nationale ñi ngi am mbégte it xam ne yéen a ji topp ci réew mi Sénégal rawat na it ci àddina bi fépp ak boor yi république démocratique bu Congo wax naa leen ko léegi président de la république ma nga woon foofu ci samedi gi ngir fekkee nag

bu mu ganesee Congo ak Félix Tshisekedi fekkee boobule xew-xew bëri woon na nag ay njiit rew yu bare bare yo xam ne teewoon nañu foofu ca Kinshasa ci biir cérémonie bobu nga xam moy mandargal ñaarelu mandat bu Félix Tshisekedi ci bopp rewma mi nonu gis ngeen ko muy nuyonté di sargalante ak waa rewma ñepp ñew ci sàdd bobu ngir dalal ko ci ñaarelu mandat bobu nga xam mom lay sumbu mom euh, Félix Tshisekedi

mu nekk na ñetti fanu ziar yoo xam ne ñi ngi ko jagleel wàllu ñaan foofu ca Mbour Amadou Ba nangu ñaan it yu kilifa diine yi nekk foofu ñu ñaanal Sénégal ñaanal njiitu réew mi foofu ca Mbour ñu yebaloon fa soxna Aram Ndaw xew-xewu dina la bu kenn du rate Mbour ndax ay bësub ñaan la jagleel ko nag nitu yàlla di Thierno Mouhamadul Mansour Baro nim ko defee woon daaw ci waxtu wi premier ministre Amadou Ba ñëwaat fii daal di fi jullee le bokk ak ñoom bi ak jàmm premier ministre Amadou Ba nee na moom taalibe doomu kër gi la Thierno Mahamadul Mansour Baro mi ngi wuyu boromam atum 2007 mu juddoo Dumga wuro Thierno di doom ci Thierno Ahmadou Baro mu nekkoon ku ràññeeku lool ci diine imam boo xam ne am nay taalibe fépp ci àdduna bi premier ministre ñëw teewe ziyaara bi sàkku fi ay ñaan

ak bàyyi démb ak barki démb ñu ñaan yàlla yàlla dugal ci élection ci jàmm ak kenn ñu ci jàmm ak salaam ñu liggéeyal Sénégal ñu ko bëgg loolu moo doon tàkk yi nga xam ñu fi andi woon Thierno nee kër gii kondo Ojeya nee moom premier ministre fii la bokk kilifaam bi mooy monsieur le président de la république moom tamit ñu ngi koy wax bismillah ko dalal jàmm o wi tawde noon o wi yo ñaage comme tem mo borom bi subhanahu wa taala mo wax ci biir alquran ne nañ ko ñaan te wonaa ɗawoowo te moom xam nañ ne yàlla du ko nay o wi ndeen indi noon ko ndeen ñaagi den mo nee na boobu tur nag la ñu ko ñaan moti bi o wi yoo rokke ko njiɗana ɗaa ko nala may luñ la yéenali ak luñ la bëggal li ziyaara yi ñuy amal ak mu jot ci ñetti fan lañ koy amal xadaratul juma bokk ci programme bi waaye ay jotaay yu ñaan ak waxtaanu diine premier ministre Amadou Ba yàgg fee ñëw teewaayam nag ci édition bu ren bi waa kër Thierno Mansour Baro rafetlu ko lool. amin ya rabal euh, alamin loolu may fatali xew-xew lo bu amone fofu ci Mbour ci ziara annuel bu ñu amal le ñu dem Ndar xam ngeen journée internationale du décompte des oiseaux d'eau ba tëg la bu ñuy jagleel walu wàññi ak lim di nga xamne modi moo di picc yi naaw diggante dëkk ak dëkk wala réew ak réew loolu nag ngi amé ci parc national des oiseaux bu djout ñu dem Ndar fekki Abdou Junior 7h45 ci suba lañ tàmbalee wàññi janaaw yu nekk ci biir parc de Djoudj mu doon loo xam ne nag fukki fan ak juróom ci weeru janvier bu jot dañ koy faral di def ci mbooleem zone humide yu nekk Sénégal su ko defee ñu mën a xam li mu janaaw yi fan la toll ak yan xeetu espèce ñoo fi nekk. bërëb bu mel nii euh, en euh, bu bu rafet la na ah, nataal bu rafet la ci ci ci Sénégal euh, ñu xam ko ci àdduna bi yëpp nag. parce que li fi ëpp ci li fi ñëw mbaa lépp euh, ci yeneen i réew lay jóge ñëw fii euh, juraat fi soog a dellu kon nag euh, gis ngeen itam ànd ngeen ak ñun gis nañ ni mu rafetee macha allah baax na képp kuy doomu Sénégal école yeeg yooyu ñu xam ñu xam bërëb bi di ko di ko di ko visiter parce que chance la ñu am dëkk ak moom. si jënaaw nag seetlu nañ ci ay njagabaan ay cormoran ak yeneen xeetu espèces xam ni wëññikat yi ràññee nañ leen. poñ boobu nag laaj na xam-xam bu am solo. ba ngay compter naka la sooy meloon ba ngay compter naka la eh, jaww ji meloon ba ngay compter est-ce que eh, amoon na poussière ba ngay compter est que am na am na am na laay yooyu yëpp nag laay yooyu sëñ yëpp dafay nekk loo xam ne yi dafay wane nde li liggéey set na am setul. ren jii nag janaaw bu ñuy woowee Stern Royal moom nañ tàbb mu nekk oiseau parrain. wàññi bii ñu amal si janaaw yi nag lu am solo la ngir mën a dàkk mbooloo mi gàllankoor yuy laal seen dëkkuwaay yi. Eh, parc de Djoudj ça n'existe pas partout dans le voilà donc li nga mën a am fii ci vécu mënoo ko am feneen ci àdduna parce que c'est une spécificité bu fi nekk euh, milieu bu mu nekk ak euh, ses réalités kon loolu it euh, ñooñu ñëpp maa ngi leen di gërëm vraiment di leen kon leen jàpp privé yi itam ñi fiy dugal seen loxo am na solo sama yeneen collègues yi xam naa ni danaa leen gën a ñaaxaat. ci seen seen i responsabilité que chaque fois ñu xool justement impact en tout cas externalité négative yi nga xam ne seen activité mën na ko am ci écosystème yu fragile yu mel na bii. beneen menace bu am solo nag boo xam ni seetlu nañ ko fi nga xam ni mooy réserve de Djoudj mooy déchet engrais chimique yi nga xam ni béykat yi dañ koy sotti ci biir ndox mi loolu nag mën a jural loraange jën yi nga xam ni janaaw yi moom la ñuy dundee. ci loolu nag jëwriñ bi ñu tënk wàllu environnement mu ngi woote booloo def benn say ngir mën a sàmm richesse bu am solo bii di parc de Djoudj yaatuwaayam toll

si suba si équipe bu capitaine Sagna dal di dor li nga xamné mom moy mooy compter fi si ville bu Ziguinchor jar nañu fu nek si yoni, be si faro yi ñoom gis nañu ay espèces yu bëre. on a vu des ay espèces yo xamné pratiquement fi lañ nek fi lañ juddoo au niveau de la la ville de Ziguinchor tel que Tantal ibis boo dem boo xolé si grands arbres fofu lañ nek fofu lañ reproduire après nous dem ñu au juste au niveau de l'air marine nous protéger ici. donc euh, pour vous dire que a une diversité boo xam euh, parce qu'il y a des grands cormorans qu'on a observé également euh, gis nañu également des pélicans gris également gis nañu des milans noirs mais y a une espèce tamit yi nga xamante ne woon compter si si weer par ben ben nga koy gis mais tay gis nañu jusqu'à ay quatre cinq six comme les hérons crabiers donc loolu tamit dafa di ay euh, recherche bi nga xamantene mom moom am ci ci site bi tamit. lu ñuy wut moo di xayma pour xam ndax ñu ngi yok wala ñu ngi ko opération bi nak mais na leen ñi gis ben espèce bo xamné ne gaaw ñu ko gis ci sen zone espèce boobu nak moom mooy héron crabier. eron crabier espèce bo xamné ne partout fële fu ñuy jaar gisuñu ko. espèce bo xamné neexul observer il faut nga ñëw ben un site un milieu bu bu mel ni genre milieu bi nga mën gis espèce boobu. Casamance mom nak amna na ndox bu doy ak ay garab yu bëree lu wara a tax picc yi mën a dëkk personnellement mun naa ne wax rassuré na ma mais sur le plan scientifique mënu ma ne rassuré rassuré na ma tant que amaguñu base de données ba mun def une analyse sur de longue série. parce que mun naa ne gis na fi espèce yi nga xamné man personnellement awma won possibilité gis ko ci yenen site au niveau de Dakar mais fini nii bi ma ñëwee gis naa diversité aviaire bi wax dëgg yalla amna solo. activité bi ñu koy def ci walum journée internationale bu ñuy jaglé konte picc yo xamné ci ne bi lañuy dundu mu nekk bu stam pour sensibiliser nit ñi ñu gën xam njëriñ picc yi. picc dañu am importance bu bu reuy parce que d'abord ñom duñu duñu nekk fi nga xamanté ne dafa salté manam fu baax rek lañuy lañuy lañuy nekk fu féex. kon ñu ngi tey gii nii bu ñu leen di protéger kon suñu bopp la ñuy protéger moo tax protéger picc yi dafa am dafa am solo. contre picc yi ñu ngi koy def si àdduna bi yëpp fi nga xam ne foofu mooy aire marine protégée yi wala si réserve yi ba si parc yi waa ANP ñaamoon kalunaay ñoom nag defar nañu ñeenti groupe pour mun a compter picc yi yoo xam ne ñu nekk si seen zone. Euh, am nañu quatre équipes il y a trois équipes ñu xam ne ñu ngi si ndox bi fluvial. C'est côté mangrove il faut la et maintenant la quatrième équipe c'est l'équipe terrestre qui commence à partir de juste euh, le qui de Ziguinchor du euh, jusqu'à dans la ville de Ziguinchor dem dans la commune même de la commune de Niamoun, continuer la commune de Koubalan. ci décompte bu daaw bi waa ANP ñaamoon kalu nay ñoom nag gisoon nañu lu tolloo ak juróom ñaari fukk ak juróom ñetti espèce picc bu ren bi nag ñu ngi compté lu tolloo juróom benn fukk ak juróom ñetti espèce fii ci Casamance juróom benn ANP moo fi nekk teg ci benn réserve ornithologique Kalisay ak li nga xam ne moom mooy parc de la Basse Casamance ci loolu la ñuy des ba léegi mbirum environnement maa leen koy wax bi ñuy tàmbali sali Portugal la ñuy ànd ak yéen pile yoon xam ngeen ci ay jamono yàggul ñaar fukki milliards ci CFA la nguur ki dugal foofu ci sali ngir mën a aar nag dëkkuwaay boo rawatina it hôtel ya juróomi at nag ginnaaw loolu gis suñu ne li nga xam ne moo di ay jéego géej gi doon ko def doon dem ci kër yi ak ci hôtel yi wàññeeku na bu baax a baax loolu nag boroomi hôtel yi ñoo ko wax ndax gis nañ ci njëriñ lool loolu tax bi ñu jagleel rubrique environnement sali Portudal ak euh, géej gi nga xam ne ma nga fa doon def ay euh, njaaxum fan lañ ci toll ci xeex ba rubrique environnement Lamine Touré. sali Portudal ab zone touristique la bu am solo ci département bu Mbour fi nag hôtelier yu mel ni Samba Kamara xel dal na ci wàllum lii di érosion côtière ay plage yu set te yaatu lañu ñu nemmeeku ci barab bi mu doon lu touriste yi di soxla bu baax a baax bu ñu noppalu waaye laata loolu nag sali amoon na ay jafe-jafe yu tar ba ñenn ñi wàññi bu baax a baax li nga xam ne moo di seen i investissement. am na période sax ñun yaakaaroon nañ ne sax on allait arrêter activité bi parce que quand même nga nekk si benn structure boo xam ne toi clients yi ñëw dañuy ont hôtel l'hôtel, mais aussi dañuy la plage pour se détendre etc. cetera mais bu ñu toogee ba la plage il xam ne fa nopolo. ñuy noppaloo amatuñu ay cases yoo xam ne ñu ngi ci booru géej fi nga parce qu'il y avait plus de place pour ériger des cases et autres donc euh, métti woon na lool mais depuis que Hollandais est sur place avec cette idée de l'État du Sénégal pour récupérer les plages de Sali, on a vu qu'ils vraiment ils ont fait un travail énorme naam changement climatique junj nañ ko waaye am na loo xam ne ci nit ki la loolu la ci di Boubacar Sabali dëggal. le dérèglement climatique ça se comprend c'est un phénomène mondial. lenn ci li ko waral bokk na ci lii ñuy ooyee changement climatique loolu nag mu nees naka nangu waaye faw ñu ñaawlu li nga xamante ne moo di ay autorisation tabax yi nga xamante ne nii ñu koy amal ci littoral bi l'autorisation de l'édification d'ouvrages sur le littoral qui ne devrait pas avoir lieu. ngir sowe hôtel yi acteurs yi dañoo daal di waxtaan ak ki nga xam président de la république ci atum 2013 ci loolee la banque mondiale dugal ci loxoom ngir wàññi bu baax a baax doole géej gi mu doon kon ab taxawaay bu am solo. ci atum 2013 bi nga xamante ne ñu ngi tàmbali saison touristique bi la ñu daal di nekk wax président de la république li nga xamante ne ni xew na fii moom chef de l'état gis na li nga xamante ne moo di jéey jam am fii. liggéey bi euh, tàmbale ci atum 2018 2019 lépp daal di euh, taxaw résultat yi feeñ bu baax a baax ci fi nga xam ne moo di euh, porti daal tellement contente que. ñun sommes nañu plage il y a même des maisons qui sont qui qui ne sont plus là. kenn mënul wax Sénégal c'est un euh, balnéaire balnéaire la plage parce que boo le Sénégal avant da nga Sénégal kat plage la ak dëkk bu neex ak donc buñu démé ba plage wàññeeku ci da fay melni sali la mu meloon melatu ko donc mënatuñ ko jaay ci anam bobu donc mom bu ñëwee ba delloo siwaat ñu suñu plage ça veut dire que délo nañu ñun suñu gëdd bi ñu nekkoon et que sali, ni mu won euh xolu tourisme ci Sénégal delluwaat na place am. nga xamné ño yor li di collectivité territoriale yu nekk ci zone bi ñom itam gis nañu seen bop bu baax baax gannaaw bañu amalé li nga xamné modi liggéey bi. tey su fekkoon ne président jëlul woon ay motuwaayam ànd ak waa banque mondiale ba loolu mun a am bon ñun heure bi du fekk sax man ma mën a déplacé wu di dem fenn parce que dootuma nekk si xel mu dal parce que heure bi dafay fekk ne hôtel yeeg quartier yi nga xam ne ñoo féete si place bi yëpp fu mel ni Saly Kulang fu mel ni sali ñax-ñaxal mais hôtel yi muy hôtel Saly hôtel euh, Filaos ak euh, hôtel Palm Beach hôtel yi nekk si littoral bi yëpp heure bi day fekk vraiment dootuñ fa nekkati kon nak japp naa ne liggéey bu mel noonu bu ko president de la republique defee yaakaar naa ne defalu ma Samba defaluko ma Demba mais man mi nga xamne man la yalla nattu man nek jiite collectivité territoriale bi man mi la ko def mu do liguey bu am solo bo xamne ci littoral bi lañ ko amalé ngir xex lepp lu soxal li nga xamne modi changement climatique fi ci rew mi. euh Savané ma ngi lay euh, nuyu fofu ci Yamoussoukro Niang ma lay fay di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi seetaan RTS ci jamono ji. naka ngeen yeewoo tey dégg naa nag ñu naan Aliou Cissé dafa xawoon tawat waaye xam naa kontante kese la. waaw xam naa ne contentement bee ëpp rek mais tawat bi nag du woon dara euh, xam naa ni dem na jot naa dem fële nga xam ne mooy hôpital bu mag bi ci Yamoussoukro. Euh, saytu nañu li nga xam ne mooy wér gi yaramam euh, jamono ji nag dellu na ci groupe mi ngi ci xale mi foofu noonu ca regroupement ba yaakaar naa ni euh, mën nañu wax alhamdulilah ndax nag ñi mu tiitaloon itam mën nañu am xel bu dal Aliou Cissé national bu Sénégal mi ngi ci jàmm ginnaaw nag ba mu amee la nga xam ni rek mooy ay yëg-yëg yu mu yëgoon ci yaramam démb ci guddi jamono ji moom tane na bu baax a baax Alhamdulillah, loolu mom soxlo nañ ko lool waye ñi ngi wax it ne Abdallah Sima dafa mel ni dafa am gañu gañu war a wat ci équipe am naka la démé loolu. wa loolu moy li nga xamni mom la fédération sénégalaise de football génné ci communiqué wax né ki nga xamni moy Abdallah Sima doon attaquant ci équipe nationale bu Sénégal. Euh, gañu gañu yi mo amone ci li nga xamni moy ay adducteuram bañu japp né jeune bu ndaw la gis nañ ne mënatul a dugg ci li nga xam ni mooy compétition bi euh, finalement dafa dem forfait manam dañ ko délo clubam di Glasgow Rangers ci Écosse fofu nga xamante fa lay yëngo en tant que attaquant am na fa lu toll ci fukki but ak ñaar ci saison bi ñu yaakaaroon loolu itam ne bu ñëwee équipe nationale dina fi gën a mën a wane boppam waaye yàlla lii la dogal ci moom mu gaañu gaañu gaañ boo xam ne nag du mën a wér fii compétition bi di jeex li gën nag euh, te euh, fédération gis ne moo gën euh, staff bi gis ne moo gën mooy delloo ko foofu lee ca clubam mu gën a am la nga xam ne mooy soin yi optimum yoo xamante ne dina mën a fexe ba ñu jox ko wér gi yaram bi nga xam ne moom la yaramam di laaj jamono ji Mama Moussa Niang laaj bu mujj xëy soxna si moy doon euh, man dama yakkar sax tay da ngeen di dalu waye dafa mel ni da ngeen xëy tey demaat encore ci entraînement yi. wa lolou nak duñ ko wowe entraînement Mama Moussa Niang mais dinañ ko wowe la nga xamni moy mooy décrassage maanaam mooy génnee li nga xamni moy choono demb bi du doon vrai entraînement bu metti moy ay daw la nank daldi di muscle yi daldi waccé choono demb bi parce que nak xam nga match yoyu ay gros choc la da ngay daw lu bari joxé lu bari légui nak tay si ngoon fukk ak juróom si ñoom sax ñoko ko ñeneen ñi ñoom dañu nekk ci hôtel ba di noppalu parce que nak demba dafa nekkon match bu metti suñu digënté ak wa Cameroun waye sant Yalla bañ ci amé ndey tay nak li nga xamante moy mooy fukk ak juróom yi nga xamné ne am nañu amoon ñi nga xamné ñoy ñaari gardien ak fukki joueur ak ñett yo xamné ne ñoom nañu ci séance de décrassage bobu nga xamné dañu tam diko def lendemain match yu mag yu melni Sénégal Cameroun bi ñu Demba. démb. ma bàyyi la nga gëreum sa équipe waaw ma gërëm Massiré Faye moom laa àndaloon ak ma Fall Momadou Fall euh, maa ngi woon fii tamit si wet bi ak sama mag nday doom moom it mu doon dugg rajo Sénégal international ñu sant leen itam gërëm leen ak équipe technique bi nekk foofu yëpp ci RTS mais également personnelu RTS bi yëpp di def liggéey bu am solo ci li nga xam ni ñu ngi leen koy dictel depuis Yamoussoukro jërëjëf rendez-vous 20h incha allah ak René Fonseca lay doon ci walu reportage Coupe d'Afrique yooyu ba léegi gis ngeen nit ñi ñu bare jënd nañu ay télévision ñi amoon yu màgget soppi nañ ko loolu yëpp ngir mën a xool Coupe d'Afrique des Nations bi rawatina it ci RTS 1 reportage la bu Mbara Ndiaye ak Ramata Dem ci Coupe d'Afrique des Nations bi nu nekk di dund ni am télévision sa kër dafa nekk lu am solo ngir nga mën a seetaan match yi fii ñu ngi ci mbedd bu ñuy wax Tolbiac

est notre client buñ fi fekk la mom dafa télévision pour nous ko mhm. moko gënal jënd benn bu bess kan bi xam nga bari dañuy euh, soxla télé efficace quoi si boutique ba nga dafa si avenue Lamingue fekk fa benn télévision bu bess option yu je préfère jënd télé bu bees qualité surtout léegi comme technologie bi dafay avancé on a par exemple des smart TV yoo xamante ni tu peux suivre les matchs même tey boo amul ay décodeur ak yooyu tu peux les suivre à travers par exemple comme ay euh, comme par exemple démb man maa ngi doon seetaan match bi mais sur Facebook laa ko seetaanee sur RTS sur la page de RTS sur Facebook donc tey boo amee smart TV di nga ko mën par rapport ak internet par rapport bu fekkee amoon ak smart TV Yo yëpp doo ko quoi. Coupe d'Afrique des Nations nag dafa nekk période bu am solo ci jaaykatu télévision ndax ak promotion yi ñuy def day tax nit ñi dañuy jënd bu baax télévision. Euh, période kaan par rapport ak euh, par exemple bu fekkente ni du kaan duñu ñu bokk parce que moment yii nii ku nekk aussi da ngay bëgg am télé télévision boo xamante ni bu leer lay nekk qualité image aussi bu baax. kaan bi nii dañ gën a ma dañuy gën a wàññi prix yi parce que actuellement nii presque mën nañu wax ni loo am am télé. ak match coupe d'Afrique des nations yu ñuy teg saay su nekk foofu sa Côte d'Ivoire poste téléviseurs yi nag nit ñi dañ ko soxlo lool mu bes wala ñu défar ko nit ñi ñom ñu leen di tel moy ñu am télévision seen kër ngir sétane match yi ak seeni njabot ma match yu mel ni Algérie Burkina Faso jàll na fi yoyit amna am solo nit ñi seetaan nañ ko ku ci nek jot nga am ñaari but ci match bobu sax lañuy ñuy Algérie Burkina Faso ak résumé bu Amadou Diallo. supporters algériens yi dañoo kontaan lool si bile match nul diggante seen équipe ak waa Burkina Faso ñaari équipe yi ku nekk dugal na sa moroom ñaari but si càppaandawu première mi bi si la kii di Konaté dugal ngir waa Burkina Faso ab mbëkk bu rafet la daal di dugal kii di Mandreya bit bi nag arbitre bi Dakar daal di bañ laata mu koy nangu ginnaaw ba mu jokkoo ak waa VAR bi ñuy dem mi-temps étalon yu Burkina Faso ñoo mëne benn bal ci dara bi ñu noppaloo ba dellu si joueur Jamel Belmadi dañu daldi di fippu Bouna Dia moo daal di égaliser biñu tollu ci minute de jeu attaquant algérien bi dafa dóor bal bu Kofi di Burkina Faso dello si noonu Fenech yu Algérie ak étalon yu Burkina Faso daldi am ku but si algérien yi gëna gawal sen football liñu bëgg moy fexé ba but Burkina Bay lolu jaxalu len bayeku ñu ñoom tamit ñu ngi bëgg dugalaat bit boobu ñu doon seet ñoom waa Burkina Faso daal di nañ koy am ci soixante et onzième minute Bertrand Traoré moo dugal penalti arbitre sud africain gannaaw ba mu xoolee action bi ci VAR bi jox penalti bi waa Burkina Faso gannaaw fotu kii di Aït Nouri Bertrand Traoré daal di dugal penalti bi deux buts à un ngir waa Burkina Faso. bile but daal di gëtan lool waa Algérie ñu war a def lépp lu ñu mën ngir ñëwaat ci match bi. bi ñuy wane juróom-ñeenti minutes yi ñu dolli ci match bi Algérie ba tey dañ koo 95 ci 95e minute le Fénék yi daal di égaliser Bounedjah moo dugal ci temps additionnel ci corner ban Algérie ñoom ñëpp tëpp daal di Riyad Mahrez égaliser Burkina Faso ak Algérie ku nekk dugal sa morom ñaari but Bounedjah moo sowe dëkkam di Algérie ci bile match match bu neexoon Amadou Diallo Algérie Burkina Faso xam ngeen fii ci RTS nag ñu ngi def lu ñu man ngir fexe ngeen seetaan match yooyu la am na ay fan zone yoo xam ne samp nañ ko ci ndakaaru ba ci biir réew mi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yor lépp jëm ci wàllu commercialisation retransmission droit de retransmission yi ak lépp loo xam ne daal jëm na ci marketing ñoom it ñi ngi ci liggéey boobu Ndeye Fatou Dieng moom moo ko yor fii ci RTS mi ngi ci indi ay leeral moom euh, Aminata Dieng di madame Potin di ci indi ay leeral ci micro Abdoul Aziz Ba. RTS tàmm na ko nag tàmm na à chaque fois compétition yu mag yi bu amee am ñenn ñuy ñëw di agiter yenn question yi nga xam ne amul raison d'être parce que euh, lenn li nga xam ne yow jëndoo ko moo ko amoo contrat ak CAF amoo contrat ak New World amoo contrat ak RTS bi nga xam ne moom moo jënd droit yi.

xamnañ né euh, dafa élaborer ay offre commerciale yi nga xamné daf ko déposer ci yenn structure lo momul nak wax deug yalla bu fekké né dang ko bëgg jaay daf lay jaaxal té ci communication dañuy gis tout temps muy wax né daf ko def pour public bi mais lool dañ ci douter parce que fan zone ñep xamnañ né légui c'est un produit commercial parce que publicité bi ci bopam mom moy bouger mom moy changer dañoo jóge té annonce yi nga xamné dañ ko daan lire euh, à la radio dem ci ay vidéo actuellement événementiel yi ci lay partenaires yi di gën a pour nekk en contact direct ak seen prospects ak cible yañ fay fekk te loolu tamit même boo gisee ci film yi da ngay gis tout le temps ay placement de produits yooyu yëpp publicité la ngay gis yenn organisme yi seen élément de langage yi ñuy def euh, ñuy xool benn promoteur pour mu la koy mu koy def ay sketch wala ay film yooyu ay forme publicité la ak yeneen parce que c'est un secteur qui bouge beaucoup donc ce euh, ñu mën a wax ci fan zone yi la RTS a l'exclusivité am l'exclusivité fan zone parce que nous xam actuellement au Sénégal en dehors de la RTS amul ben média bi nga xam qui da le diffuser ne serait-ce qu'un seul match amul donc lors bu amulé, naturellement nous avons am exclusivité à accès libre Nous avons wax free to air nous avons am exclusivité bobo. le CNRA bi nga le régulateur bi foog prononcer une wu na ci bu yàgg dafa am solo pour RTS lu tax mu am solo pour RTS dañ koy faral di wax euh, ñun c'est le public notre raison d'être ni ngeen ko xamé l'État du Sénégal dañuy appuyer ci acquisition droit yi mënon nañ jël droit yi rek diffuser ko à l'antenne tok studio peut-être euh, yenn yi duñ ko def mais dañuy préférer def fan zone yi pour nek en communion avec le public voilà motax tax mu am importance ak RTS te aussi dañ koy encadrer en dehors volet boobu partenaires de plus en plus dafa am ay yenn visibilité yi nga xam ne dañ koy soxla communication télé je vais expliquer ça. expliqué sànq dañuy bëgg nit ñi proposer produits ou des services nous ñu leen di jege di leen di laaj ñu donc opportunité aussi pour partenaires ne ñu nekk sur le site mais ce yëpp bu amee tamit nañu reconnaître ne l'État du Sénégal ba nous ñu jàppalee te acquisition droit def ñu waat pour mettre en place ces fan zones parce que fan zone yooyu dafa am coût écran bi def c'est un coût logistique bi koy accompagner yépp coût mais rax ci dolli toujours di am alliance yu muy def pour di permettre ñuy def ay prestations ak yooyu voilà loolu moo tax euh, pratiquement euh, cette année ak DAO d'ailleurs ak suñu partenaire SD Consulting état du Sénégal jàppale ñu ñu mën a en place nu mat 46 fan zone. Ndeye Aminata Dieng directrice commerciale euh, marketing bu RTS loo momul teg ko fi moo tax euh, bébé yi nga xam ni jële woon nañ leen ci kër yërmande te moom moomuñu ko woon seeni borom ak waa kër docteur jël ko yóbbu ko ca Gaspard Camara bébé yooyu nag ñu nga foofu ba léegi ñu ngi leen di toppatoo bu baax a baax di leen waajal. ngir ñu delluwaat seeni njaboot professeur Ibrahima Jirou spécialiste la ci wàllu tout tànk moo ko xamal Ramata Dem reportage mu nekk séance bi nga xam ne dañ ko def ngir seetu xale yi si jafe-jafe yi nga xam ne dund leen ko fan yi ñu weesu léegi ñu ngi commencé di bokk di fo ak i ree dañuy tàggat xelu xale yi parce que en réalité xale yi ni en particulier dañoo soxla ku ku ku leen donc stimulation cognitive également stimulation motrice pour que xale yi ñu bouger commencer daw commencer foo commencer fait. loolu livre c'est important parce que buñ viable viable mooy maanaam mën nañ dund jusque l'âge de 5 ans bébé yi nag ñu ngi leen di toppatoo guddi ak bëccëg fii ci centre Gaspard Camara loolu tax léegi ñu ngi dal ànd ak jàmm ak salaam tey moom sant yalla bu baax parce que xalé yi comme navee luñu waxone bé passé rek ñu ngi tané bu baaxa baax ñu ngi jël poids euh ñu ngi euh, màgg macha allah et ils sont assez stimulés voilà tay luñu mëna wax globalement euh, ça va très bien parce qu'actuellement, actuellement pronostic vital est bien engagé aussi, et machallah, euh, actuellement euh, nous sommes ci bolé tay ak équipe bu ci de docteur Giroud, bu ñëw tay sur le comportement xalé yi sur également l'aspect psychologique manam xalé yi ni ñuy ni ñuy réagir par rapport à leur environnement lii ni def ni day tax lépp luy stress ci xale yi dinañ ko mën a dindi ndànk-ndànk loolu waral professeur Ibrahima Giroux ànd ak équipe am bi yëpp ngir ñëw saytu xale yi ba pare gën leen dimbali ci seen wergu yaram. donc bu ma ñëwee gis naa vraiment liggéey bu mucc ayib ci nu ñuy toppatoo xale yi parce que généralement bu fekkente ne euh, surtout tout temps ki ñu amul diggante tous ba ñetti at buñ dundee genre métital yi nga xamante ni ñi dund nañ ko. Euh, traumatisme boobu généralement bo boo leen gisee la première fois yow mi da ngay bëgg joy tellement da fay feeñ ci sen yaram day feeñ ci sen kanam dootuñ bëgg dara ci àddina bo ñëwé nga xol xale yi da ngay gis ni ñi ils ont la joie enfin joie de vivre xëy c'est trop dire mais fi ni ñongi changer ñongi changer véritablement amna na ñoo xamante ni boo xoolee courbe de poids da ngay sentir ni sen courbe de poids mi ngi yegg et eh, ñooñu tu sens aussi que dañuy gën a engagé dañuy bëgg a foo dañuy bëgg a ree dañuy bëgg a maanaam ils reviennent à la vie xaw ma koy ci wolof mais ils reviennent à la vie donc loolu dafay wane ni am na liggéey bu mucc ayib bi nga xamante ni moom la fii ak Gaspard Camara en tout cas moom lañ jot a nammeeku ci euh, ci xale yi. bébé yi nag ñu ngi tane bu baax a baax macha allah li si def mooy fexe ba xam kan mooy seeni waajur ngir nu mën leen delloo wala jox leen ñeneen ñi nga xam ne bëgg na leen toppatoo ñu ngi koy def et la plupart des parents aussi ont été identifiés et ñëw nañ sax cette si ñu biñ ko defee aussi on s'est rendu compte que nous ñi ci aussi dañu bëgg a jëlaat seen doom wax nañ leen ni ñuy def avec le tribunal pour enfants et les services AEMO pour mën a jotaat seen doom ñu continuer accompagner leen maintenant am na ci ñaar ñoo xam ne pour le moment ñaar rek lañ ci amagum ñoo xam ne xaw nañu réticent té ñu ngi leen di sensibiliser xool nu ñuy def daal pour euh, jëlaat seen doom avec notre accompagnement bien sûr. Euh, euh, comme que phase médicale boobu mi ngi jeex si il faut que ñu xalaat fan la ñuy denc xale yi donc loolu moo taxoon ak réunion bi ñu defoon gouverneur di def ñaari mission yoo xam ne wër na Dakar ak Thiès ak Mbour. pour identifier pour yi nga xam ne ñoom si existé na légalement ndax ñooñu mën accueillir xale yi donc lundi lañu am réunion donc devant autorité yooyu pour ñu valider site d'accueil li metti woon yépp macha allah weesu nañ ko li ci des mooy fexe ba tout tànk yi am avenir bu baax waaye état bi tamit dugal na ci loxoom bu baax ndax mu ngi teg ay jéego ngir xale yi mën a màgg ci jàmm ak salaam ànd ak wérgu yaram te li ngi wax sécurité maanaam kenn du leen fexe lu bon li ñuy tàmbali maa ngi leen koy wax euh, tey dañ leen euh, présenté li ñuy wax petit palais petit palais xam ngeen mi ngi fii ci boori marché Tilène léegi nag nit ñi gën koo xam ci maison de la culture euh, toute sec léegi nag soppite yooyu nan la ñu def ba mu nekk ab résidence officielle la woon mu nekk ab maison de la culture loolu nag lañ leen di toppal ci biir reportage bu Mariam Biram Ba maison de la culture d'Oute sec di ab bërëb bu ñuy jëmmal ak fësal ada ak cosaan moonte ci gannaaw ga amna bu mu bile le di Mamadou Dia qu'un président du conseil ci jamono Senghor de ak à Kinjabotam. le président diap la dëkkoon fekk naa ko fu man ba tàyyi parce que man jayist la lu taxoon mu dëkkoon fa rek dafa ne woon nañ ko wutal kër gu jege jàkka pour mu mën di julli ji ñël ak di wasifa ndax ja taalibi tijaan bu rëy la mu féete ci xolu Medina biir Dakaru maison de la culture Abdoulaye Douta Seck am ay souvenirs yu bëri kile di El Hadj Kane di doom ci ñenn ñi daan ànd ak Mamadou Dia di fatlikou kër gu xaw a la dafa xaw dafa yaatu lol ak garab yek yooyu ak euh, gaynde yeeg y avait même de petits de petits petits petits lions si je m'en rappelle y avait des des des sortes de gazelles ak yooyu yooyu bu ko defé ñun yooyu daf ñuy attirer ñu gëna nek ci keur gi gëna a ci keur gi ba sax bëgguñoo dem bu ko defee ñu waxtaan ak mom en tant que père. ak yi ak jabaram ak ay domam ku melna tala ku melna babakar ku melna na Tidiane. bu ma saan da ngay xamni ni président du conseil mu ngi genn ndax dafa jigen marché ti leen ñëpp tàccu yenn mu waccu auto nuyu len so a continuer dem au building bi xamni mom moom ko tudde legi bërëb bi.

ngir neexal leen. Alassane Ndiaye Alou mi nga xam ni ku ne xam na ko moom it directeur d'école la woon bi ko defee xaritam la mu influencé ko ba nga xam ni école boobu ko jege ak yeneen école yi ku ne dañ leen doon jox cadeau pour le gën pour pour pour motiver la ndax loolu la ñu mën a def pour motiver xale yi ñu gën a mën a jàng bu ko defee ëllëg ñu nekk ay cadre mën a def seen liggéey normalement. Mamadou Dia mu dëkkoon fii ak njabootam ba ci atum 1962. di at bi ñu ko arrêté ci kër gile le 17 décembre nag bi ñuy wax coup d'état wala coup de force le 18 décembre nag la ñu ko fa arrêté ah di bisu avant midi wër nañu kër gi fekk mi ngi ci biir kër gi bi ñu wëree kër gi génnul bi mu génnee nag jëtu jëlu jit foofu lañ ko arrêté gannaaw li ni mel ñenn ci kilifa yu ñu coup d'état ci diwaanu Afrique dalal nañu leen fii aku ci mel ni Daouda Kairaba Diawara nekkoon njiit ca Gambie Hissène Abré, Tchad ak Ahmadou Ahidjo ca Cameroun. Ayeri yenn kilifa yi nag daal leen daal bi après bi président Mamadou Dia bi ñu ko arrêté ba mu dem Kédougou ay kilifa yu bari dul leen di dalal foofu. ñaar fukki fan ak ñett ci weeru avril atum 1997 qui di président Abdou Diouf Ngentewat waat bërëb bile ko maison de la culture nestoute ñu jox ko turu Abdoulaye Doute Seck nekkoon ku ñu ràññee ci wàllum aada ak cosaan maison de la culture Doute Seck ñu daan woowee Kër Maodo wala sax résidence Dia bokk tey ci liste nationale des sites et monuments historiques loolee ci atum 2004. xibaar yi dina dellu si incha allah 20h ak René Léon Fonseca ñu fanaan jàmm.